a assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci ndigalulu seex Muhammadul Muntaqa Mbàkke xalifa général des mourides yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ci kilifteefu sëriñ Muhammadul Qabbaan ibnu seex Muhammadul Faadil mi sëriñ bi dénk mbooleem daara alquraan yi ci Tuuba ak li ko wër ci kilifteefu sëriñ Bachiru Mbàkke ibnu sëriñ Abdul Qaadir mi jiite comité organisation màggaluk Tuuba ci kilifteefu sëriñ Abdul Ahad Mbàkke ibnu sëriñ seex Gaynde Fatma mi jiite commission culturelle comité organisation organisation màggalu Tuuba jaa'izatu acheikh ahmadu bamba xaadimu rasul al aalamiya lil qur'aanil karim di jonganteb alqur'aanul karim bu ñu jagleel sëriñ Tuuba xaadimu rasul mu bokk ci yëngutu yi comité de organisation bi di amal ci jamonoy màggalu Tuuba ngir yaatal liggéeyu troisième édition bi ba mourid bu tabel man kam. Tak aw ñakam tax na ñu sampal leen kurel gu tuddu Sayxuna Ahmadu Bamba Xaadimu Rasul ci njital président d'honneur ba serigne Abdou Samad Mbake ibnu Cheikh Chouaïbou tey kurel googu nak moy liggéeyal serigne Touba ci alquraanul karim waye jaarale ko ci tawu jaizatu Cheikh Ahmadu Bamba bi. ñu ci wo mbollem julit yep rawati na taalibe yi ñu am yoon anamuk jaayante ak anamuk hadiya anamuk jaayante gi mooy nga tànn saar wula soob nga ni at mu nekk danaa ko jaayanteel trois cent mille anamuk hadiya gi mooy nga tànn saar wula soob nga joxeel ko hadiya la nga man ay ca murit ngir tànn saar yu ngeen bëgg a jaayanteel ci liggéeyub Serigne Touba bii wala tànn saar yu ngeen bëgg a joxeel hadiya la ngeen man wala yeneeni leeral woote leen ci 77 227 34 59 wala 77 531 99 04 wala 77 551 23 13 جائزة الشيخ أحمد بامبا خادم الرسول العالمية للقرآن الكريم لجيل سرين توباجي القرآن برخول دارالا ku liggéeyal Serigne Touba ci Qur'an ñor ñëwal jaayante fii aw saar murit nay bar liggéeyub yàlla ak yoneen la liy sikkul ku def tew fukk am ay junni ci koppar te ëllëg alxuraan day ram mu aw xeetam ñëwal jaayante aw sarwaayi murit day bar